tribunal le palais de justice de Dakar Ousmane Sonko leader Pastef ñëwoon soutenir li nga xamante ni moom mooy ay naataangoom waaw mi ngi noonu ak ak garde corps ngi noonu di yëg ci otom pour mën a dem euh, Ousmane Sonko ñëw mbooloo mu tàkk dem ñu réeru génn tribunal bi gunge ko di yóbbu turam naan ko prési prési Ousmane Sonko ngi dem destination na xamaguñu ko réaction bu doon nañ ko am mais malheureusement amuñu en image Abdoulaye Seck déplacement bi nga xamante ni defoon na ko suñu ngir ñu soutenir ay naataangoo ci procès bi am ndax procès baa ngi wéy waaye gis nañ sax Khalifa Sall génn na dem gis nañ ay dëmboo génn dem informé nañ ñu Moustapha Guirassy dikk na moom itam apporté soutien waaye waxtu bi ñuy wax yéen ñu ngi gis nañ en image Ousmane Sonko ñu ngi dellu ànd ak caution protocole fan la jëm nag xamuñu ko bëggoon nañu woon am réaction mais amuñu ko. waaw donc ku tëj sa jabar tëj la maa ko waxoon waxaat naa ko ku ko tëj ci kaso bi sa jabar da lay tëj ku jël say responsabilité ne da ngay tëj Ousmane Sonko jëlal say responsabilité tàggul say bokk tàggul say bokk. tàggu say say am di jàmm te fay say bor non loolu wax naa ko ba pare la ma ko waxoon dama koy waxaat tey Ousmane Sonko ku ko tëj sa jabar dana la tëj kuy jël say responsabilité tëj ko fayal say bor dégg nga mi réew réew mi dononte réew mi kenn jur bàyyi kenn moomu ko réew mi Macky Sall jënd ko jënd ko xarewut gañe ko ba ñuy xeex démocratie ci 23 juin moom dafa dawoon koroog man maa ngi taxaw 23 juin bët 18 heures la fa jógee bi El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf génne projet bi jeex na man maa nga fa bi may ñibbi sama kër parcelle solu may dàll di xeex xëy di xeex démocratie di xeex ba euh, heure bi Macky Sall korow bi muy ñëw dafa daw dugg ci pharmacie bi musul am fit ba ko Abdoulaye Wade bëggee jàpp dafa daw dem ci El Hadj Baara dem ci El Baara na ko El Hadj Baara dimbali ma Abdoulaye Wade daf may tëj askan wi musul ñor askan wi musul gëm askan wi lu mu mës a gëm daw ak yuuxu kon nag bu tayee mu taxaw jàpp ne dafa lam doon bañ démb la bëgg a jaarale suñu kaw duñu ko nangu man 1971 laa judd du ma gone kenn fu ma feex fu ma fekk dëgg dama koy xeex du ma xeex injustice dama koy xeex li ñu wax nag di ko waxal Macky Sall ko Ousmane Sonko moom na bàyyi xelam nag rëcc na ko. donc yéen jàpp ngeen ni Macky Sall da leen trahir ndax yéen a bokkoon ci euh, arène politique bu 2011 yéen a doon xeex pour démocratie est-ce que démocratie bi dellu na ci ginnaaw wala. Macky Sall moom ñi sax da leen trahir ay ñoom Moustapha Cissé Lo trahir na ko trahir na Aline Badara Cissé mujj xamatul ci moom dara ak ñeneen ñeneen ku mu boo xamee ne ñun comprendre lépp jeu bi comprendre nañ ko mais na wax xam ne Ousmane Sonko mi insha allahu taala dama koy dénk di ko ko dénkaat di ko ko dénk ak njabootam di ko dénk ak moom bu fekkee ne insha allahu taala loxoom dem euh, éliminé si Ousmane Sonko loxoom takk na ci loxoom takk na ci waxuma moom ak képp koo xam ne xeetoo nga ak moom danañ la a raafal sëñ bi li ma wax tam man tam ah ci naa laa taxaw di bu fekkee ne fexe na ba loxo dénati Ousmane Sonko wala élimination takk ci loxoom moom na pare. mais est-ce que attention dunduk Ousmane Sonko attention déglu leen dunduk Ousmane Sonko ak dunduk Macky Sall ñoo ànd. déglu leen ma de dunduk Ousmane Sonko ak dunduk Macky Sall ñoo ànd moom na xam ñoom ñaar seen dund ànd. bu bëggee nag baax na bu bëggut baax na. Mhm. mais est-ce que jàppoon ni le 29 euh, leen teree euh, seen marche bi dañuy jàpp comme ni ko commencé di wax force euh, force occulte yi ak ñi xam ne ñooy rebelle ñoo ñoo ñoo rax ci mboolo bi. moo xam nga man li ma a li a li ma a li ma gën a bañ mooy jël ab pëlëkëlër mu taaw jàkkaarloo askanu Sénégal naan ay rebelle ak yu ma xamul te ñi mu tax li muy wax na ko wax. pëlëkëlër bu demee am bu toog ñu manipuler ko ko toogal wax. mu jàkkaarloo askanu Sénégal di patiner. c'est des mensonges ah taxaw daan ñu koy laaj naan ku ma naan ay rebelle ak danañ jàpp ni danañ jàpp ka wax ji jërul guddal boo bu fekkee ne li wax day noppi. yow jàng nga jàpp nga ni convaincre kenn. waaye kan la convaincre moom convaincre jabaram sax. wax dëgg dëgg la convaincre jabaram wax joo xam ne yow li nga wax yow gëmoo ko gis nga gis nga euh, sëñ Abdoulaye Mbacké maa ngi ma ne sëñ Abdoulaye Mbacké daana wax ne doomu aadama li muy wax su ko gëmut ñi ngi koy wax duñ ko gëm. Ah. li ngay wax yow mi nga xam ne yaa koy wax gëmoo ko yow ñi ngi koy wax duñ ko gëm. Mm-hmm. nañ respecté sénégalais yi constitution bi Macky Sall moomu ko ñoom Macky Sall fayu leen ñoom magistrat yi ñoo taal Afrique gépp te ñoom suñu toog seen i confort seeni i moo tax ñuy taal Afrique nañ xool ci seen moroyu européens yi nañ xool seen moroyu américains yi ñoom dañuy jël dignement jël seen fonction di liggéey kenn du leen manipuler mais pourquoi Afrique conseil di taal Afrique pourquoi cons may ay ay magistrat ay procureur di taal Afrique ay ay centaine de personnes di ci dee africain bi ñoom ñooy kan seen farandoo bu ñu fanaanee tey itam euh, prison loolu leen fas yéene non xam nga ñun ñun Macky Sall war nañ ko Sénégal ne leen jaay doole la def vendredi passé Ousmane Sonko génn na ne day julli ji mu ne ko doo julli ji loolu ci ban ban ci fan la ko teg fan la teg non man Sonko yow doo julli te moom julli jiwut mais julli jiwut ab julli la ko bàyyi mu julli du ah mais gis nga anal quwwata lillahi jamian wa anna allaha sadidul asab yàlla ne na kattan man yàlla rek ko am xaaruna suufa ko modd firawna Musa ko labal namrus aw yoo la ko suñ borom rey aw yoo aw yoo la dugal ci nopp bi mun a daggaleel ma sama bopp bi ñu dagg bopp mu dee gis nga li muy jaay nii dañ koy maye dañ koy maye man lama ko waxoon laa ko wax jëm jàmmi Sénégal daal moom ci la nekk dégluwul kilifa diine dégg naa mu dem demu ñu naan ko bul def nii bul wax bul wa dafa gën a bon wax Macky Sall li muy def moo gën a bon ñu naan ko bul wax defal li ngay def bul wax mais ñun askanu Sénégal la ko séqal mais est-ce que Ousmane Sonko jour boobu noonu du stratégie parce que am na ay farandoo euh, Macky Sall ñuy wax ni Ousmane Sonko géej na julli xamuñu kañ la. innamal innamal ahmaalu bi niyaati innamal ahmaalu bi niyaati nit ab xolam yàllaa ci nekk bu ko neexoon sax mu def stratégie mais stratégie bi Macky Sall daanu na ci kon cuune la cuune la xam nga cuune ni mu cuune ci ci pièce boobu loolu ñu ko defal ne ko dañuy dañuy dem julli ji mu ne ko waaw arrêté ko ne ko doo julli ji ni mu cuune ci loolu pièce boobu ni mu ci daanu nii la cuune ci yor Sénégal gis nga ni mu cuune ci loolu ci Macky Sall nii la cuune ci yor Sénégal procès bi ñu ngi si pare guñu te xam nañ ne incha allah taala dañ leen relancer leen ndax li ngeen jàpp injustice la dañ leen jàpp ci jaay doole jàpp dictature yoo xam ne nii tegu amul fenn fu mën a fekk ab garde corps xëy di liggéey si deful dara participe moom participe sa manifestation xëy di liggéey si ñu jàpp ko six garde corps nga jàpp leen tëj leen ci kaso bi def leen mandat dépôt loolu loolu amul feneen waaw ñu jëlaat keneen euh, mu wax ñu par rapport Ibrahima Gueye nay leer voilà leen di leen ñëpp di leen gërëm uh-huh. di ñaan yàlla coono bi Sénégal di coono pour Sénégal tegu ci dëgg yàlla nañu yàlla suñu borom may coono boobu muy coono dëgg yàlla nañu yàlla suñu borom coono muy coono bi nga xam ne moom la mag ñi daan xeex Serigne Touba dañ ko xeex El Hadj Malick doon ko xeex mag ñëpp doon xeex pour Sénégal am jàmm Sénégal mucc ci ak noteel yàlla na suñu borom xeex bii ñuy xeex yàlla na ko ci suñu borom jaarale ak ci xeex booba yàlla may ñu ndam te ku bëgg a yàq Sénégal yàlla na suñu borom yàq ba doo ko tal ku bëgg a taal Sénégal yàlla nañ la xambe xambe yaay matt mi ñuy xambe Sénégal ku bëgg a taal Sénégal matt mi ñuy xambe Sénégal yow yaa koy taal yow la ñu ko xambe yi matt mi loolu na ko leer liggéey Serigne ko yàq liggéey El Hadj Malick si ko yàq liggéey dañ koo jox réew mi dénk ko na yor réew bu paree mu delloo ko na mu ko war delloo leneen nag laay wax yi may wër wër wër lii yëpp troisième mandat lay wut wiiri wiiri yëpp troisième mandat lay xalaat te ñemewu ko wax waaye troisième mandat dama ne mim réew góor ko fi laaj góor dëgg góor dëgg góor dëgg mooy laaj troisième manda ci Sénégal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu priorité yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal kenn focalisé wu ci ci yoo xamante ni c'est pas important mooy combat politique pour li ñuy wax mooy lépp loo xamante ne ñu ngi dox Sénégal ñi ci dee Sénégal dañ ko respecté lépp loo xam ne moo lañu fekk comme loi wala droit ñi ko war a def war koo waxtaanee lañ waxtaanee ñi nga xamante ni tey ñun ñoo ko bokk nga xamante ni Sénégal bu baaxee Sénégal yi lay baaxal bu Sénégal yàqoo tamit Sénégal yi ñoo ci nga xamante ni mooy intérêt nga xamante ni mooy intérêt occidentaux yi ñu koy défendre nañ xool bëgg-bëgg Sénégal nañ xool li nga xamante ni mooy jariñ Sénégal maanaam bu fekkente ne tey li fi baax bu tubaab yi ñëwee yóbbu ko lépp loo xamante ni coono la ak naqar nga bàyyee ko li nga xamante mooy Sénégal yi nga ne yow Sénégalais nga man sa trop te bi ngay laaj réew mi ñi àndoon ak yow ci yi di mën seen combat di dem ci naaj bi di dem ci fu nekk ñu fay dugg parce que ñun dañoo yaakaaroon ne espoir nga pour jariñ Sénégal espoir nga pour jariñ ndaw ñi espoir nga pour jariñ Sénégal génne ko ci gudde gi nga xamante ni moom la nekkoon ñun bu ñuy xaar président président bi ñuy xaar mooy président boo xam ne xam na jafe-jafe Sénégalais mooy président bi nga xam ne lépp loo xam ne Sénégal nekk na ci ci lëndëm ci tiis ci naxar su ñëwee dina génnee nit ñi ci jafe-jafe yooyu noonu su ñëwee lépp loo xam ne fekk na fi mu nekk ay catastrophe dina rayante jaayante ba génnee nit ñi ci loolu parce que njiit bu ñu koy fal dañ koy fal ci bëgg réew njiit bu ñu koy fal dañ koy fal ci bëgg njiit bu ñu koy fal dañ koy fal ci mu dimbalante ak population bi nga xam ne ñoo ko jiital parce que nit du jiite boppam nit du jiite boppam nit ki muy jiite mooy ñu waay bu fekkee dañuy waxtaanee réew mi nañ waxtaanee ak bu fekkee dañu waxtaan ci réew mi nañ waxtaan ak ñi ko seex su fekkee jàmmi réew mi la ut nañ oo nit ñu toog ñëpp waxtaan ci calme ku nekk ñu jox la li nga mérite li sa cër ñu jox la ko yàlla mooy cëral nit yàlla mooy cëral nit tey ku bëggoon mel nu la neex da ngay ñu lay tàccu di la di la di la di la yi foo jaar ñu xam ne yaa génn bu ko yàlla génnee ci yow nangul loolu te xam ne yàlla mooy maye bi la ko yàlla maye ñi ko si seqaloon nangu woon nañ ko ci jamono jooju noonu su fekkee dañ la ko bañaloon ci jamono jooju tey doo fi nekk dara doo représenté dara kenn du la déglu mais bu fekkee yàlla jël la ci yow loolu nangu ko keneen ku mu ko defal itam nga nangul ko parce que nit day nangu ndogal ndogal bi ngay nangu mooy su la ay nit jiitalee ñu dem ba li ñu la jiitaloon gisuñ ko ci yow ñu gis ko ci keneen yaakaar ko ci keneen ngeen la mooy dogal yàlla nag li mu dogal ci jaam la te la preuve li la koy wan mooy bépp kilifa sa honneur mooy te fu jafe-jafe am ñu woo la nga ñëw défendre li nga xamante ni mooy Afrique tey li ñuy gis ci taaru Afrique mooy li nga xam ne war ko mën a wane mooy africain yi nekk benn africain yi déggoo nekk benn ba état yi nga xam ne tey seen état benn la doole ji ñu am tey ci adduna bi mooy benn gi nekk benn tey li ñuy xaar ci nga xamante ni moom lañ yaakaar ne moo porte espoir boobu noonu muy président Ousmane Sonko mooy dajale Afrique Afrique nekk benn yaakaar bi ñu ci moom nga xam ne bu ñëwee dina rassembler Afrique yëpp ba nga xam xaar ci président Ousmane Sonko moo tax espoir bi nga xamante ni jox na ko ndaw ñi bi nga xam ne jox na ko ndaw ñi lenn loo xamante ni tey dina taxaw dëbee loolu wala mu lëndam loo xel yi wala mu soppi xalaat yi ba nga yaakaar ne ba nga xam ne espoir bi nga xam ne am nañ ko ci moom wala yaakaar gi ak bëgg-bëgg bi nit dina tax ñu changé moom changé loolu ñun nag ay idéologie xeex gëm-gëm xeex Pastef la ñuy xeex yaakaar la ñuy xeex li ñuy xeex mooy jàmmi réew mi li ñuy xeex mooy stable réew mi li ñuy xeex mooy kenn ku nekk fa nga nekk di liggéey nga gën a gis sa bopp ci loolu mais da ngay gis ni ñoo xam ne dañuy liggéey du ñoom xaalis Sénégal ngay liggéey kuy liggéey 40 ans buñ la tabax loolu nekk mënoo ko tabax buñ la laajee dépense mënoo ko joxe Sénégal métti na Sénégal métti na ñi ko jiite nañ ko nañ ko toog waxtaanee ko ngeen la waay bu kenn taal réew mi bu kenn yàq réew mi mais nag ku nekk na nga am yaakaar fi nga nekk ku nekk na nga dem fa nga nekk ki nga am yaakaar nga supporté ko nit ki ci nekk ki nekk beneen kan nangul la ko Sénégal nekk ci jàmm lii laa amoon pour wax ko maa ngi leen gërëm di leen sant